décision Ziguinchor bi cour de euh, suprême mu ko annulé da ko delloo euh, tribunal d'instance de Ziguinchor euh, de Dakar loolu 14 décembre 2023 yaakaar naa ni yéen ñëpp suivre ngeen ko foofu tam ñu amaat fa ndam bu rëy ordonnance président tribunal d'instance hors classe de Dakar nga xam ne honorable juge Ousmane Racine Thion annulé waat radiation Ousmane Sonko. joxewaat ndigal ñu delloowaat Ousmane Sonko ci list électorale yaakaar naa ni yéen ñëpp suivre ngeen décision boobu nga xam ne c'est une décision qui doit être immédiatement appliquée selon l'article 47 alinéa 4 du code électoral article 36 ak 74 loi organique portant création de la Cour suprême 18 décembre 2023 juge bi notifié ordinance bi parti yëpp notifie ko ministre de l'intérieur notifié ko DG e, notifié ko DAF notifié ko ñëpp ak avocat yi mais malgré tout le 19 et le 20 décembre ñu delluwaat DG ñu delluwaat DAF delluwaat caisse de dépôt et consignation service yooyu yëpp bloqué ñu ci bunt bi bañ ñoo recevoir teg ay alkaati yu takku pour ne ñii buñ leen bàyyi ñu dugg mooy man en tant que mandataire ma ànd seeg sama avocat maître Ciré Clédor li ak l'huissier de justice maître Guillaume Sagna te ñun lu ñu jógoon lu ñu taxawoon a jóg mooy comme lu ñu defoon ci procès bu njëkk bi décision bu njëkk bi signifier leen décision bi ba pare ne leen lu ngeen war a def maanaam yow DGE da ngaa war a joxe fiche de parrainage puisque décision am na da nga ko war a appliquer immédiatement joxel fiche de parrainage mais mënuñoo gis cendee la faal daaf da nga war a delloo immédiatement Ousmane Sonko ci list électorale yi moom la juge bi ndogal mënuñoo gis Fiacre Badiane le directeur de l'automatisation du fichier CDC caisse de dépôt et consignation da nga war a joxe attestation parce que kii déposé na caution en bonne et due forme ba nga jox ko quittance léegi attestation moo ci des jox ko mënuñoo gis Cheikh Issa Sall le directeur général de la caisse de dépôt et consignation ñoom ñëpp làqatu seen ginnaaw bureau teg ay alkaati si bunt bi ne ñii bu leen bàyyi ñu accéder te ñu jiite ay service public jiite ay administration ñoo xam ne askan wi nañ fi nekkal te ñemewuñu jàkkaarloog ñun wax ñu seen argument wala seen version nga xam ne nekkuñu si yoon <coughs> léegi nag ñu gis ni autorités yi notamment ministre de l'intérieur DGE daax caisse de dépôt et consignation dañoo persister si lu ñuy woowee banditisme administratif persister si seen refus appliquer décision de justice yi persister également ci loo xam ne ak ak yelleefu doom euh, Ousmane Sonko di ko salfaañe te teg nañu jéego yépp ak procédure ñu waroon teg yëpp lu ñu waroon def yëpp def nañ ko pour que en tout cas si njekk ak teranga ñu exécuter wu appliquer décision de justice yi appliquer code électoral appliquer constitution bi mais dañoo bañ lànk nekk dans la rébellion administrative nekk dans du banditisme administratif nekk ci par parparloo caaxaan ak tappale teg légalité fële mel ni nekkatuñu ci état de droit soo gisee ba léegi ministre de l'intérieur ak ministre de la justice ñu jëloon ñoo xam ne ñoo créé problème ñëpp xam nañ ni ay toj-toj nañu daf Macky Sall da leen mujj dàq kenn ki ñu yóbbu ko mu toppatoo ji ay pétrole keneen ki moom on l'a amené aux affaires étrangères parce que xam nañ ñi lu ñu daf ñu fa teg ñu bees ba léegi déggoo ci kenn prononcé wu ci ci affaire bi parce que ay avocat nañu xam nañu yoon xam nañu nekkuñu ci yoon Sidiki Kaba xam na ni nekkul ci yoon Maître Aïssata Tall Sall la xam na ni nekkul ci yoon moo tax duñ ci wax léegi ñoom ñu ñuy saraxe nag mooy fonctionnaire yi ñu ñuy saraxe mooy administration bi ñoom Thiendella la Fall ñoom Fiacre Badiane alors ñoo ñu ay exécutant nañ mais ñoom ñoom ñooy commanditaires yi <coughs> ak Macky Sall ak candidat am Amadou Ba nga xam ne mooy premier ministre moo jiite gouvernement bi donc situation bi ñii la demee te ñëpp gis nañ ni ñoom lu ñu benn mbir rek moo leen si taxoon a jóg mooy tardeel ñu bañu ñu bañ a déposer suñu dossier de candidature au niveau du conseil constitutionnel